des koy tàmbalee ak euh, situation socio-économique l'observateur bind na ci xëtam mu njëkk ne ruine yi Ousmane Sonko doon ndox mu di pays en ruine état en ruine lañ fi fekk nee na tey jii la ñuy joxe détail moom sax am na lenn lu mu ca joxe moom yéen kay bi di l'observateur ci ay xibaar. l'observateur ñëw na ak ñu nit ci Lat Diop ma am lante ak yoon lu aju ci tey gi ñu ko téye ak déglu gañ koy déglu développement yi ci mujj. l'observateur mi ngi ñu koy wax discours bu rëy bi Diomaye fay yëkkati démb ca ONU l'observateur xëy na ci dellusiwaat vérité de Diomaye à l'ONU la ko tudde yéenekaay bi mi ngi ñuy xamalit ne lu aju ci recours bopp waa ATEL fale ci opposition bi def nañu ko ca kanamu Cour suprême ak ci CEDEAO ngir attaquer décret bi président Diomaye convoqué élection législative yi l'observateur ñëw na ak ñu nit ci ñi nga xam ne daal dañuy am lante ak yoon bu ñu demee dellu si ñu bëgg woyofal yëf yi fiixal kaso yi tax ñu leen di takkal ay bracelet électronique waaye gis na ne lañ ci doon séentu safaan la ñu am l'observateur dikk ak ñun ci kii di aada booy soxna Fama xam nga aada booy. gulu gulu gulu. waaw <laughs> ngi noonu <laughs> moo ngi noonu moom aada booy moomu l'observateur mi ngi ñuy gën a xamal ak moom ndax bu weesoo loolu nga ca wax xam naa ne dinañ liñ ci leneen liñ ko xamal bariwul. Euh, beneen yéenekaay di soleil national dikk ak ñun ci euh, njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay ak discours bi mu ne def na ko démb ca ONU discours boo xamante ne ji dee su ko fàttee discours qui fera dat noonu la ko soleil national binde Walf Quotidien li mu xëyee mooy conférence de presse bi premier ministre Ousmane Sonko di def tey jii ngir wax réew mi li ñu fi fekk ci jamono jooju mu di bés bi ñuy fàttalikoo suuxu batalo Joola nee na bu ñu moytuwul waxi Sonko yi dana nëbbu. Euh, suuxu euh, batalo Joola Sud Quotidien ñëw ak ñun ci lu dakkal processus électoral bi ne opposition bi soobu nañu ci xeex bi jaar ko ci wàllu yoon enquête ñëw ak ñun ci élection législative yi gaa yeeg nas yeeg nocc yi ñu nekkee jamono jile les ko di ñu xibaar ne Kër Lat Diop demoon nañ fa perquisitionné ko waaye gisuñu fa dara le témoin ñëw ak ñun ci mbiri Diop si Abdoulaye Sylla Lat Diop Jérôme Bandiaki nee na daal lii nii mënees na koo jàppee entrée kon laata plat de résistance bi jëm ci euh, xibaar yu ñu war a euh, leeral Pape euh, Vox Populi dikk ak ñun ci opposition bi ak pexe yi ñuy teg ngir taxawal ab intercoalition Tribune xëye kàddu yi Birahim Seck mooy bu forum civil nee na yoon wi nga xamante ne ji moom la ñu jël ngir def réduction des comptes amul dara kon lu ci mën a dalum xel las dikk ak ñun ci attelle mi mu ne sisir na cour de justice bu CEDEAO ngir bëgg ñu neenal décret bi Diomaye bind ba convoqué élection législative yi yeneen yéen beneen mu di bës bi la jour moom wàllu xaalis ak campagne bi la xëy nee na jamono ji ku nekk yaa ngi seet noo ko mën a lijjantilee sa bopp euh, lii quotidien dikk ak ñun ci atel mi attaqué décret bu jomay yéen kay bi di source soit dikk ak ñun euh, ci avocat yi nga xamante ne ji nee nañu euh, danañu mooy avocat Lat Diop bi ndax garde à vue jeex na ñu téye ko téye guñ ko téye moom defatu fa dara te loole du yoon dañuy euh, salfaañi ak ak yelleefam ba tax avocat mi bëgg ko kon jug lijjanti le quotidien nañu opposition bi taxaw na ngir xeex yëf yi réew mi quotidien dikk ak ñun ci loolu mu di opposition bi bëgg a freiner processus électoral bi ñu jeexalee ak wàllu tàggat yaram soxna femme tournoi UFOA U20 Sénégal du mën a gine démb ñaari bal ci dara mu nekkoon kon gaynde yi assommé nañu Syli national Eh, soxna Fama.